monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. du nuyu ministre des finances la dalal jàmm fii ci assemblée di la sant baax la gërëm. monsieur le ministre ñun dañuy sant son excellence président Macky Sall ci turu pêcheurs yi nekk ci département de Foundiougne ak région de Fatick. sama collègue wax na ko léegi Adama Boukounta Thior ci survention moteur hors bord jërëjëf président Macky ak gilet de sauvetage parce que ñun boo ñëwee tey Toubacouta dañ dégg commune boo xam ne tey xool jëlee ay bidonti jël ay Bosinkan. ba ba ngay yegg si tey Foundiougne lépp ci Île du Saloum ci département de Foundiougne la bokk ñu xool li président Macky saal di fa def ñu koy sant bu baax di ko gërëm yow nag dañu la xam def nañ ak yow fii cinq ans ci sa fulla ci sa fayda ak sa nangu liggéey moo tax leneen lu fi ñëw di wax jarul tontu monsieur DG Port maa ngi lay sant di la gërëm Mountaga Sy ba ngay ñëw Foundiougne di joxe caabi port yi maa nga toog ñu gërëm ci Macky Sall lam ñu waxoon def na ko mooy su may nommé directeur port damay jël doomu fu ñu nommé ko pour mu dimbaluñu ci emploi avancé yi nga ci def jàppale ñu lu mu gën a gaaw ñu daw parce que ñu toll ci course bi mais am nañu yow yaakaar parce que ni nga defaree port Ndakaaru ku gis port Ndakaaru ak ni nga ko assimilé boo ñëwee day nekk suñu patron ci port fu ñu dañu am yaakaar te port boobu nag terminal pétrolier bi fa nekk la mu war a mën a générer dafay dimbalaat dundalaat encore département bi monsieur le ministre may wax ci centre de pêche bu Missirah dañu bëgg nga ñëw visiter ko. japonais yi ñoo ko fa defoon centre ba yàqu na frigo glace ba yàqu na centre ba doxatul agent ba fa nekk fi ne ay collecte lay def di fayee ko ay droit de stationnement loolu nag dañu bëgg nga ñëw visiter ko wala nga ñëw ay équipe ñu ànd ak commune bi dem xooli ko parce que nag li nga xam tey moom la ñu soxla tey ci département de Foundiougne mooy ay infrastructures yoo xam ne mën nañu générer rural bi fi nekk nii xale yi mën a am toog liggéey si nga xam ne fa la ñu dëkk mais monsieur le ministre ñu lay jox ci centre boobu amul lu mu doon généré wu ci glace océan bi dafa ko jege parce que boo jógee Missirah beneen bi pour dem ci géej gi dafa yomb ñu bëri fa lañ doon ussee glace tey boo demee ci waa Ndayane dañuy campagne si Missirah ay près 150 pirogues yoo xam ne ñoo campagne si Missirah ak Lebu yi loolu nag dafay tax centre boobu pour ñu doxal ko dafay am njëriñ bu baax ci mun Mountaga ñu ngi lay sant di la gërëm réew mi mënut a ñàkk wax waaye da nga nekk ci dëkk te ni nga assainir port Dakar ku ne gis na ko teg nañ seen bët gis nga les roues yi là qui traînent dans les rues di wax fii c'est des menteurs du ñu am les bonnes informations dañu ñëw toog fii un certain Guy Marius Sagna dugg fu nekk rek il faut mën a collecté lu andi ko fii ci assemblée ñëw pour arrêter ay du jàll ça passe pas nous sommes des politiques comme moom la muy jëlee ci mbedd mi na du benn dëgg parce que mu leen gën a xam yéen ñoo administration di administrer société yi xam li ngeen yeewoo xam li ngeen fanaan bu fekkee dafay jëli waxi syndicat yi di ko andi fii tey président Marière yaa ngi ne toog fekk la fi xam lu bëgg xaw Sénégal suñuy xarit la ñu xam leen ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom Sidi Kanté ñoo ñoo ma dëkk lépp lu xew ci dëkk bi amul dara lu ci yow parce que député dafa uti information waaye dëgg nag mais nag pour lu ma neex rek dinaa ñëw fii parce que ci un député damay wax fi ay malfaçons ça ne passe pas lu mu fi wax daañu ko tontu c'est un menteur merci je vous remercie